Ibrahima Fall ñu bëri ñi ngi fi ku si tudd sëñ tudd sëñ Cheikh Fall sëñ Fall Abdou Sakoor sëñ Cheikh Assou Ndiaye sëñ tudd sëñ jabootu sëñ Baara Ndiaye sëñ Mbacke Ndiaye sëñ maam tudd sëñ Basirou Fall mi nga xam ne si tamit sëñ Bada muy kër sëñ Basirou Fall sëñ Bada Fall mi toog toogaayam moo sabab ñu dikk si kàddu yi xam ne kàddu siyaara lay tudd mu di dong akub sëriñam di kàddu yu baalu àq sëñ bi mën see jotale kàddu yoo xam ne si dana fekk dongo yi nga xam ne si mënuñoo maase ñëw siyaar si sëñ bi sëñ bi mënul maasale ñëpp siyaar leen mu jaarale ko si ku si jot rek xam ne say kàddu yoon kàddu soññe ak kàdduy sant gi ngërëm comme sëriñ bi liggéey bi weesu lu dul maam Saarama Fall jëmm jum jëmmaloon lii ko sëriñ Tubaa digaloon mu taxawee ko ba jóge fi ak njabootam di ko taxawee nga bokk si njaboot gi bokk si taxawaay bi taxawaay bi am solo lool loolu nag sëriñ bi ñu mën koo jox kàddu yoo xam ne si dana mën a dolliwaat ab soññee si mboolem ñi nga siqal liggéey bi si liggéey bi ñu génn muy weeru koor di sëxru ramadan di ramadan mubarak asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ngi nuyu ki nga xam ne suñu kilifa di Cheikh Mamadou Mountakha di ñaan saa borom ko lool ànd ko gër di ci teg sëñ am ni mu dum benn faal mu nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan suñu borom guddal fanam te yokk ak wéram ba lépp lu mu yéenee liggéeyal maam ju baax ji mu àggale ko doole suñ tubaab Cheikh Ibrahima Fall di nuyu sëñ mooy suñu gudd ci kër Cheikh Ibrahima Fall di ñaan borom yàggal ko fi lool te doole ak wéram di nuyu comme noonu ko waxee baay Fall ñang rek képp koo xam ne yaa ngi ci penc mi sëriñ Cheikh Fall Mbor mu sëñ Ali Fall Mbor ak sëñ Ali sëñ Abdou Fall Abdou Sakkoor ñoom ñëpp sëñ Cheikh Assou Ndiaye sëñ Fallou Fall ak njaboot sëñ Baara Njaay gi ñëpp ñu ngi leen di nuyu baax di leen jaajëfal ak sëñ Cheikh Xadim mooy bi mooy suñu mag di leen jaajëfal baax saa borom bi ñu teew ko at bëree bëri suñu borom guddal fan yi te yokk wér yi te dolli xéewal baax ak Cheikh Ibra Fall te bu baax comme ci noonu ñu ko waxee rek ngeen ko tàmbalee woon ci ban koy tàmbali koor gi ndog yi ñu tàmbali ko bismillaahi rahmaani rahiim te àggale ko alhamdulilah rabbi alamina kon ñu ngi leen di bu baax ban koy dogg tàmbali koor ngeen fi ñëwoon di ko ànd ak ñun ba tey jii suñu borom def liggéey bi nga xam moom lañ doon liggéeyal jàmbaar ju baax ju tedd jooju Cheikh Ibrahima Fall tey ji yàlla dogal liggéey ba mat na ba sëriñ bi yiwee ñu ñaanal ñu démb tey ji nag doon bis boo xam ne bisub éet la boo xam ne nii di bisub mbégte kon tey ji ngeen dellu ñëwaat fi li waral ñëwaat geet mooy comme ni ngeen ko waxee léegi rek taalibe yi nga xam ne tamit moom yàlla dogaloon na ndigal li leen sëriñ bi joxoon ñu àndoon kook ñun nekkoon ci nag ba yàlla dogal mu mat ba sëriñ bi jox ñu ndigal ne ñu jaajëf ñu ko waxee démb sëñ maam Ndiaye ku jëfut doo dégg jaajëf baa baatub jaajëf daa gàtt en ku ko jëfut doo ko dégg kon nag loolu moom ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax te di leen sant te di leen ñaanal lépp lu ngeen ci def rek yàlla na leen saa borom defal tawfeex ak wér te yàlla nañ ci dajee ngërëmu sëñ Tuubaa ak Seex Faal ndax kuy liggéey ku ne añ rek ngay bëgg te lii ñuy liggéey kii ñu koy defal ñemewut bor daa am pay muy Cheikh Ibrahima di buntam di Serigne Touba tam jële woon ko Serigne Touba kon liggéey nañ ko ba am ci jaajëf te loolu lu jafale tàmbali yomb na waane àggale moo jafe kon nañu ndokk mën a àggalee yàlla nañ ko teewee at yi bëree bëri te saa borom leen xeewal dooli wér ak wér ñu kàttan ak sutura ak tawfeex ak sant nañ leen bu baax ndax lii ngeen di def lu am solo la ndax am na ñoo xam ne nii am na yéene ñëw ci sëriñ bi comme nii ngeen ko waxee siyaare si ak it liggéey bi nga xam ne moom lañ doon liggéey waane mënuñu ko waane dara ëmb leen ci lépp mu ngi ñu ngi koy jot fan toog mu di leen leer ban xam ni ñu jëfit fan koy dugal ak li leen war yoon wet ñu di ko xam bu baax kon lii daanaka moom dañ leen ci war a sant yéen bu baax te di leen jaajëfal di leen ñaanal saa borom may leen wér ak wér lii dem ba doon ay télé nga xam ne ñëpp dañuy toppantoog di jàkkaarloog yéen ñi mën a ñëwit ñëw ci ndigal yi nga xam ne sëñ bi da koy joxe ndax bu sëriñ bi wootee nga wuy si rek loolu moom lu am solo la ndax it lu lu fa waa jëf rek yaa ko moom sëriñ moom bu wootee rek wàcc na ku wuy seet wàcc nga kon loolu lu mat a bàyyi xel la saa bu sëñ bi joxee tee ndigal muy ndogu yi muy addiye yi muy tabaski yi yooyu yëpp na leen koy bàyyi xel ndax kat tey jii sëriñ bi ñaanal nañ démb waaw mën nañoo toog bu suba sëriñ bi wooñu jox ñu ndigal ñu Seex Muntaxa mi fi nekkal sëriñ Tuubaa bu joxee ndigal sa jëm ni mu dum benn dañuy jógaat ñun Baay Faal moom duñ wàcc mukk tey ji buñ nañu woon wa kon ab Baay Faal du wàcc xam loolu xam ne sëñ bi dañoo ñaanal ne ñoon dellu ci kër yi diglu juwaat ndigal kon ndigal loolu mu wax nag ko bàyyi xel baax te xam ne am na lu nekk suñ kanam di ñëw yàlla nañ suñu borom yóbbu ci jàmm muy tabaski yi moom it mi ngi ñëw te tabaski yi nan ko daan jëfe nu ko raw dañ ko koy defee tabaski bu jàlleet addiyee yaa ngi ñëw addiyee yooyu lu jumante ko liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey ca Mbàkke ak leneen ak leneen mi ngi suñ kanam nan xam ne daal ab taalibe bi moom du wàcc mukk dañuy dégg jaajëf rek buñ déggee jaajëf toog digluwaan ndigal nan lañ ci góorgóorluwaat bu baax liggéey bi nag rafet na macha allah xool yëpp sedd nan ndax ku gis ndogu yi ni mu demee ci yoonu Baay Faal ñu sant Mbàkke sax wax dëgg yàlla koo ci gis danaan ab Baay Faal laa ndax liggéey Baay Faal kon loolu ginnaaw ñun dañuy roy nag war nañoo xoolaat suñu bopp xam ni nii jëpp ak ni nii waxee ak ni nii taxawee ak ni nii doxee te xam ne kat Cheikh Rafal kenn ku nekk bëgg naa doon jëmmi Cheikh Rafal ji waaye moom la ko suñu borom jagleele loolu kon lool ñu ngi ciy santaat baax te di ci ñaanal ki nga xam ne moo ko fi nekk si ñoom mu benn mu yàgg lool te ànd ak wér di ñaanal tamit sëñ Abdou Rokhaya Fall mu ngi nekk Cheikh mu yàgg bi lool te ànd ak sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp ñu ngi ne di ñaan daal yàlla na yàlla saa borom defal daal lépp lu ñu def ren ji bu déwénee yàlla na asakaam ci daraje suñu tubaab Cheikh Ibrahima Fall mu mel ni kàddu yi rafet na nii lañ ko ànd yow yàlla nañ la yàgg fekk si fii ànd kook yow si liggéey bi mu mel ne ku ne xam na ne ndogu yi bu ñëwee mbooleem dongo yi laxasaa yi jóge ndakaaru dañuy bàyyi seen yitte yëpp ñëw teew si ànd kook yow ba mu jeex nga xam ne loolu it lu am solo la ku ko suñ borom man loon ndax ndigal ku ko xam xam li si jëriñee doo ko sàggane ni ma koy waxee nag nit nag bu amul lu dul lenn lenn loolu waru koo sàggane biñ ñëwee tamit feggoon nañu fekk fi sëñ Baara Fall mu sëñ Abdou Aziz mu mel ni dangeen ngeen bokk Cheikh Ibra wëlbatiku bokkaat maam te loolu seen ànd bi ànd bu rafet la boo xam ne si taxawaayu kër gi lu jiitu la loolu it sëñ bi lu si mën a dolli lu mën a amaat ab doxal. waaw loolu nga wax day xelay fa baara mi ñu feggool it wax dëgg yàlla ñoo bokk Cheikh Ibra Fall bokk kër Cheikh Mor Talla Fall bu noppi mu doon suñu doomi bàjjen waajur mu jigéen bokk ak sëñ benn waajur wu jigéen kon loolu it ñu ngi koy nuyu baax di ko siyaar tey jéggalu xam ne xel mooy fattu rek ndax yàlla daa dogal mu xëy moom ñëw ne day siyaare si kon moom ñu ngi koy ñaanal moom it saa borom defal ko tawfeex ak wér ak wér la ak sutur ak xéewul baax te xam ne yoon yi moom noonu la rek waaw ndax ni ñu ko àndee daa rafet lool suñu waajure kat sëñ Abdou Sall yàlla na yàlla dool leeram moom sëñ Daali Yaasin Baal noonu lañ ànde woon te ànd boobu ba tey wax dëgg yàlla diggante kër gi muy sëñ Bada mi ko fi nekkal sëñ Cheikh Mor sëñ Xaadim ak ñëpp ànd mi daal diggante ñaari kër yi ak kër Serigne Aliou Fall Mbor ak yëpp daal rafet na lool ba ci kër Serigne Bara Ndiaye ànd bi rafet na lool ndax wax dëgg yàlla foo ci boo ci dem da ngay fekk ñëpp jaxasoo ànd la fi mag ñi bàyyi di nekk ay rakkam yëpp dañ ko daan fekk ci ëttam bii ci buntu kër bi ñu daan jot ñu dugg ci biir xewlu bu noppee noonu la ñuy def ba kenn ku nekk daal day mel ne fatu rek moo la yóbbu sa kër kon loolu ànd ne xale yi ñin ñi toll toll bokk toll jamono wax dëgg yàlla loolu ñu ngi koy dundal bu baax kon loolu dañuy ñaan yàlla na saa borom sàmm te musan seytaane ba ànd bu yàgg lool ànd ak wér ak wér la rek bokki taalib yi jógee ba Dakar it ñu ngi leen di jaajëfal bu baax te xam ne li ñu moom mooy li leen war ndax ku bi woo nga wuy si nga li ci des bi la sëriñ bi nag moom mën na lépp am na pay kon dañuy ñaan yàlla na leen sëriñ bi fayal boppam leen tawfeex ak wér ak wér ak xéewal te xam ne képp koo xam ne sëriñ bi daa woote nga ne mënumaa rek bis dana bis dana ñëw lépp loo jàppoon nga bàyyi ko fa te doo ko sañ a bañ kon nag lii ñu def ñoom xam na ne lan waxante woon ak sëriñ bi na ko jébbal na la suñu bopp àddina ak àllaaxira loo ñu digal ñu def loo ñu tere ñu bàyyi ñoom jëfe nañ ko ba mat sëkk ndax sëriñ bi woote na uysi nan kon wàcc nan li ñuy ñaan daal yàlla nañ ci daje ngërëmu sëriñ Tuubaa ak Seex a jin am liggéeyal ko ko yàlla defal barki maam Seex jërëjëf ne yaa ngi bokk ak ñoom kër géet am si taxawaay rafet sëñ Bas mel ne sëñ Fallou démb rek sëñ Bas mooy jotal ne ma da nga koo bett bett am solo goo xam ne da koo jox daamaar goo xam ne si donc da koo jëlee ndax daa fekkoon mu doon ak bëggam te loolu lu lu ñu rafetlu la faal. lu ñu rafetlu la waaw jërëjëf loolu moom ñu ngi leen di ñu ngi leen di sant bu baax a baax waaw suñ ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal suñu mortal yees ba suñu rakk suñu Basiru Fall mu ko wax suñu Fallu Fall ak suñu Abdou Fall suñu Morob Laay Fall ñëpp soxna Maama Fall ak soxna yëpp rek ñu ngi leen di nuyu moom di leen jaajëfal bu baax te xam ne ñoom ànd bi ànd na ma ko waxee woon rek ci commencement ba ànd liggéey bi lépp ñoom lañ ko àndal sant naa leen bu baax ci njëlbeen ga mujj gi sant naa leen ndax seetaanu ma ci benn yoon lépp lu ñu jëf rek ñoom la ak taalibe yi kon ñu ngi leen di jaajëfal baax di leen ñaanal saa borom guddal seen fan te yokk seen wér yokk seen i xéwal loolu nga waxee ci wàllum daamar wax dëgg yàlla euh, loolu moom ñoo ko bokk ndax it ñoom ñooñu dama xam ne képp koo xam ne amoon nga ko ci yéene nga defal ma ko te loolu dara weesagul kon loolu bu yàlla dogalee mu nekk bi tam doonu bëggit moom daanaka day mel ne alalam la rek loolu du ma ci dara alalam la rek waaw kon ñu ngi leen di jaajëfal baax ñoom daal sant nañ leen bu baax wax dëgg yàlla ndax seen taxawaay moom it ci kër gi rafet na lool seetaan nañu benn yoon waaw ñu ngi di jaajëfal di ñaan saa borom may leen wér ak kàttan ak sutura taw bi ak xéwal baax barke Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf jërëjëf mu mel ni sant nañ bu baax naam si saayir ay ndaw ngeen waaye nag ndaw sëriñ bi ngeen wax ñu tudd di tudd sëriñ bi si saayir la waaye nag doo ndaw seen ànd beet ni ko mag ñi doon doxe doog ngeen koy doxe yal yàlla lafal cat doo leen siyaaree fii buñ mësaan ñëw dañuy ànd ak sëñ ma Massayer Loum Baye Fall si Ibrahima Diaw Baye Fall mu mel ni bis bi moo leen xaw a tënk-tënk goo xam ne si ñu ñëw nekkal leen fi kon ñu ngi wàcc kàddu yi foofu sëñ bi di sàkku sëñ bi doole ñaan mboolem taxawaay bi rek jërëjëf Fall.